coowal Ousmane Sonko ba léegi mi ngi woy ñi koy jàppal tànk te nekkee ci dëkk bu sell bii di Touba ci njiitul Serigne Cheikh Thioro Mbacké ñoo woote woon janook taskatu xibaar yi. tey nag li ñu fi dajale ñun ñëpp xam nañ ko mooy mbir moo xam ne nii waxuma la Sénégal mais dafa engagé Afrique gépp engagé benn dëkk dëkk boo xam nii rek mi ngi ci àdduna bëgg li nga xam ne moom la ñuy wax démocratie. Sénégal moom day mel ne lu mel ni du fi guléet am na fi amata fi am fi waaye day mel ne bii mooy dernière fois bi. te manifestation yi am fépp ci Sénégal wane na ko Macky Sall bu doon dafa am lu muy isin dafa mel ni lam doon isin essuyer ñuy xamul président Sonko rek ne lii wéetu ci tudd ju mas a wéet ndax Sénégal yëpp ñu ngi ci ginnaaw engagement bi mu mën Sénégal yi ak gor gi mu mën senegal yi Sénégal yi wan nañ ko ne ko doo ñu gën a gore ndax xam naa ne démb bu ñu bëggoon a jël bakkanu bu ñu bëggoon a jëli Sonko moom xam naa ne bakkanam dina fa des ndax xam naa ne li daloon Khadim Bousso dina ko dal xam naa ne bakkanu Sénégal yu bëree bëree bëree bëri dina ca des biñu amee renseignement yi noonu rekkiri nañ waaye mel ne dañ naan jàmbaar dawul dafa wuti doole ñu ngi làqatu nag information yi ma jot a am. ci moom la ndaje dajale woon ñu bëri ñu nekkee ci kujje gi tey nag nekkee ci département bu Mbàkke ñëwoon may doole ñii nga xam ne rek ñoom ñoo ànd ak Ousmane Sonko tey nag jamono ji ñu jàpp ne seen leader dañu ko bëgg a neewal doole. lii nga xam ne moom lañ na a teg Ousmane Sonko ndax dañ koo dund ci Karim Wade mu jàll ñu dund ko ci xalifa Sall mu jàll tey jii buñ ne. convoqué nañu Ousmane Sonko ñu toogee bàyyi justice mu doxal rek la xewoon démb xew bërki démb mooy ja mooy xewaat moo tax nag ñun ñëpp ñu booloo doon benn say ndax ku wax Touba xam ne opposition moo fépp doole ku wax Touba xam ne ñi fi ànd ak Macky Sall leen di wàññi bëriwuñ kon donc moo tax ñu daje fii lii nag phase bu njëkk bi la ñoo ngi waxtaan suñu biir. di peaufiner ay ay stratégie buñ ca tollee dinañ def lañu war a def état buñ toll am na taxawaay buñ ca war a taxaw ñoo ngi woo ñëpp nag. ñoom patriote yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba jamono ji nag taxaw temm ne lii ñuy def Ousmane Sonko duñu nangu mu jàll ba tax na nag kàddu yi artu la ñu yëkkati woon jëmale ko ci njiitu réew mi Macky Sall. dañu xamal ne président Sonko comme ni ko Sénégal yëpp waxee patrimoine patrimoine national du ku def ko Karim Wade def ko opposant bépp bu ñu ko defee président Sonko du jàll li tax du jàll mooy sénégalais am nañ expérience bi xam ne Macky Sall mi doonatul koo xamante ni dafa ñeme opposant pour ba di jàmmaar la woon moom benn la xam mooy ku ko opposé mu pare la pour làqatoo yoon pour daaneel la ñun respecté wuñu yoon du ma ne respecté yoonu Sénégal bii ñu nekk Macky Sall nga xam ne da ngay képp ku ne am na droit mu teg la ci ko xam ne da nga koy mu pare jàll ci affaire président Sonko bi Sénégal yëpp war nañu ko kilifa diine yi nag ñu ngi leen interpellé encore une fois xam ne lii dee ak li nar a gaañu ci Sénégal yi seenu njaboot lañ Macky Sall moo ci gën a néewle te bu gisul lu mu xam day jël avion dem France comme ni ko yeneen président yi defe comme ni ko Blaise Compaoré defe ñeneen ak ñeneen defe ko kon nag tey jii duñ nangu Macky Sall mi bërki démb ay maam mosuñoo tekk dara ci réew a jël réew mi kidnappé leen lu ko neex mu def ko kilifa diine yi waruñoo seetaan loolu war nañoo wax ak moom kilifa yi diine yi ñun dara jiital leen ci ci ab yar ak i teggin akub taalibe lañ doxee suñu lépp waaye nag am nañ droit yëgal leen ni ku artuwul danga nga atte te nañ moytu nag souvent bu réew mi yëngatoo ñu ne tekk bañ cee wax ba bu ëllëgatee si biir buñ baree wax ñu ne ah ba muy metti waxu leen woon te xel yaa ngi koy bëgg a nag kon nag ñun ñoo sañ a waxee wax leen nañ wax Macky Sall ne ko na arrêté lii au delà de jëmmi Sonko ça n'est plus une question politique lii question wu patriotisme la parce que mënuñu jël suñu ressource naturelle yépp ñu jël ko jébbal ko français yi jébbal ko tubaab yi sénégalais yi dugg ci mbënn bi dem kenn waxu ci feebaru covid bi di rey nit ñi waxoo ci ñu gis fi kilifa ko def ay déclaration ay milliards yu dul jeex coow la jeex jeexagul nga tàmbali xëy ñu wax ay waxu ay jigéen ak nangam ak nangam mais wax dëgg yàlla président Ousmane Sonko ku ne xam ne ne jigéen du problème am nañu wax leneen dañoo juum dañoo daanu ci njëlbeen nañu wax leneen kon nag dafa am ay wax bu feebaree nopp yi muy dëgg yu muy dugg ñoom moo moo war a wér ñuy alerté nag président Macky saala xamal ko ne ko am réew kenn du ko yor ci ay caaxaan kenn du ko yor ci ay njuuj njaaj. ñoom sax de xamle nañu ne dàq ñu sax wane seen bopp tax na jamono ji ñu ci woo kilifa diine ndax lay raam ca ñag ba la jëm bu dee nag lu soxal xuppaate gi nga xam ne jàpp nañu ne dafa am ci yenn ci ay responsable yu nekkee file te jàppal tànk Ousmane Sonko Serigne Cheikh Thioro Mbacké dikkaat yi woolu gi ñu ko woolu woon comme comme ni ñu ko defee Babacar ko defee defe ko yeneen coordination yi nekk Sénégal yëpp di woo nit ay appel a xëbal xawma luñ ci jublu ñun nag li ñu leen wax leer na convocation duñ ko wuyoo par téléphone képp koo xam ne daal ñun intéressé nañ la boo ñu yotee convocation dañ la wusi loo ñu laaj dina ci tontu waaye daal ñu xam ne ñun duñ ñu xëbal suñuy maam bërki démb ak bërkaati lu mu woote pare nañ pour wuy si ko ci incha allahu rabbi président Sonko daal li muy waaj ak li muy li mu bëgg a def mi ngi ci suñ kanam nekkul ci suñ gannaaw ci suñ kanam la nekk bépp jéego xam nañ ko te dañ leen ci nga xam ne rek ñoom ñoo nekkee ci kujje gi nekkee ci département bu Mbacké fast nañu seeni doole ngir